jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñoom ñaar xeex nañu attention kawo Sa Thiès Boy Niang daan na di leen bëggee bu baax a baax a baax di leen jaajëfal yéen ñi topp ci Leewtoo TV internet yi ku ci nekk dama koy nuyu ci turam ak santam tey ñu ngi fii ci kër góor gi ah boo gisee Mansour fi ñu nekk nii nga war a xam ne am na ku ñu seeti ndaanaanu làmb ku bokk ci làmb xale bi nga xam ne bu waxee mu neex bu jëfee mu neex kon dañuy daal dugg rek ñëw seet si xale borom Bantamba TV borom 2S TV ah Mansour xam nga kooku nu mu tudd xam nga wala xamoo ko mu Modou Mbaye dinaa ko la l'enfant véridique wala <laughs> ci la nga nekk booy sénégalais bi rek Modou hmm, Mansour gisee fi ñu nekk nii Bantamba TV <laughs> une télé une vision ñëw. waaw. bëgg fii la waree. ci la nekk. sant Serigne Touba. yaa ngi noo sa bopp bu baax. ngi sant. tey waa Leewtoo jóge Leewtoo ah. ci ginnaaw baobab. waaw ñu taxaw ni benn koñ taxaw ni di waxtaan nii neex na de nii nii nii nii ci la bokk ah. kon dañ koy dañ dee damay toog taxaw ma de. dafa taxaw affaire du doole nga fu gër yee. bàyyi ñu toog rek xam nga yow ala undu bi nga koy jaay man loolu. <laughs> ginnaaw bañ ko seet see nag fekk ko fii fi muy liggéey ah Modou dama lay nuyu rek bàyyi la nga nuyu internet yi. dama doon génn sax di gëdd doon bëgg a jënd ndekki. far yaa xam ma ñaari yoon laay ndekki damay ndekki ay 7 heures après ma ndékkiwaat. ñoo ñoo lay simmi. Ah, may simmi de ñoom ñoom ñoom maa ñoom ñoo ma dàq lekk mbuubeen yeeg sàmbeen yeeg wàddeen yeeg yooyu. ak ñaseen yi. dama doon ah xam nga man damay ndékki ci suba après ma. ndékkiwaat maa suba la ma jot. treize heures et demi. ngay ndékki. waaw parce que añu géwél day yéex ay 16h lay ñëw. waaw bu ñu def ay bëgg a jeg yooyu. surtout ci safar gi nii añ bi day gën a gudd day gën a naaje. waaw day gën a jël temps ndax ñoom xam nga dañ ciy nekk di ko dund guddi gi. bëccëg bi balaa ñoo taal yàlla baax. ñu ah. yàlla di la bëggee waale di nuyu les téléspectateurs bu baax a baax di nuyu équipe bu mag bi nga àndal Momo ak Mansour ñooñu ñoom samay xarit lañ ñoom ñoom wax dëgg yàlla yàlla dogal na suñu diggante nekk nice depuis Leewtoo ah depuis la création de Leewtoo avec la grande équipe bi fa nekkoon Ndeye Koumba Fall Ba Kër Ndeysaan lu tëgg tas àdduna moo mel noonu quoi mais bon di la nuyu di kontaan ci sa teewaay fii safar gi comme nii rek comme ni nga koy gisee ñi ngi liggéey mais aussi ñu ngi dund safar gi ndax bu nu wàccee du ñàkk yenn ci ay bërëb yoo xam gars yi ñu ngi fa mais aussi bu ñu wàccee dem toog ci gars yi café gi du jolli ñuy dund safar gi xam nga safar moom mooy waajal li nga xamante ne ni mooy màggalu Touba li fi ñu toll mën nañu lii mooy en route vers màggal waaw. nga liggéey est-ce que di nga mën a am jot ngay def li nga doon def lépp war li nga bëgg a def lépp ci safar bi nga koy doo am temps bi sax doo am temps wu def ko parce que xam nga temps bi dafa daf daf affaire yi daf lay occuper de tele sorte ko mooy loolu surtout que léegi Bantamba TV ñëw na wax dëgg yàlla amatuma benn amatuma fenn yitte yàlla seere na ko dematuma fenn su ma xëyee maa ngi fii ñëw ñu nekk di liggéey xam nga bëgg affaire bi yokku temps bi nag bu xatee ba xat ba xat xat xat ak ni mu mel nii. wax dëgg yàlla doomu yow sax xam nga ni temps bi xat na yow xam nga loolu ndax interview bi xalaat naa hésité naa parce que bëgguma fausser ay nit déjà nii am na ñoo xamante ñi ngi ci biir toog ñu war a waxtaan xam nga te ay kilifa lañ ay kilifa boo leen yëkkatee moom xale moom nit lu mu doon doon xale kilifa la xam nga boo leen yëkkatee faaw nga toog waxtaan ak ñoom jël sa temps ci ñoom mais wax dëgg yàlla ñi ngi jéem a fexe ñaari temps yi ñàq nañ ko mais xama rek jéem a taxale quoi ba ku ci nekk rek li nga bëgg ci ñun nga am ko ci waaw ci say kàddu dañuy dégg mun mbay heure bu wax mu ne des fois ñoo xam papa lu mën nekk xarit di liggéey ci benn mbir bokk ak sa papa yan jafe-jafe nga ciy dund bon jafe-jafe yi bariwul hormis loolu rek ma ci doon wax bokk moom plateau yoo xamante ne des fois on parle du pays position ak sama position du doon benn xam nga moom munu ma nekk ci plateau bi di modérer ba pare man ma bëgg nekk ci plateau bi di modérer et je jeune ce que je sama ay moroom di ko dund mu mu leer ma ni dëgg la te loolu la ñuy dund j'ai la droit toog ci télévision bi wax ko wax ni sama ay morom sonn nañu soxla nañu nangam ak nangam ak nangam bëgg nañu ko leen jàppale bëgg nañu ko changer nangam ak nangam ak nangam comprendre nga xëy na sama position boobu moom du mun a am position boobu man bu ma yoree position wu xale wax ak fugg moom mu contrôler ñu wax nañu waaw dégg nañ li ngeen wax am na solo xam nga mais des fois yi duñ comprendre loolu mais nag garaawul ñu ngi koy ñu ngi wax koo xamante ni tëgg live la Père Bécaye moom tëgg live la booy Grand Dakar la waaye il s'est battu ba yegg si fii te yaakaar naan doo ay wax moo koy déstabiliser nañu wax rek le travail le chat le la caravane le chat aboie la caravane le chien aboie la caravane passe mun ta ñàkk ci noonu nag nga nekk reporter nekk ci milieu làmb milieu bu metti Modou Mbaye est-ce que amoo ay jafe-jafe bëgg a jël mbër ñu naan non non kii kii la far kii la far wala nga dem ci benn lieu am fa ay jafe-jafe ndax reporté wala dëkk bi nga dëkk ndax Grand Dakar nga dëkk am na ay champion yu fa nekk. yàgg na yàgg na yàgg nañu am jafe-jafe ci lu jëm ci wàllu liggéey du benn du ñaar ñett du ñeent yàgg na ay jafe-jafe yoo xamante ne ni bon daf lay jàngal euh, daf la dafay tax nga am expérience ci adduna parce que doomu aadama boo nekkee ci benn niveau comme man bi may ñëw ci làmb man j'étais le plus jeune. maa ci gënoon na nekk xale et bon boo ñëwee dëkk Grand Dakar sa papa doon Bécaye Mbaye ñu dégg ni Pikine nga juddoo ba pare nga am rapport ak yenn mbër yi nga xamante ne ñoo nekk Pikine rapport bi ñu am bon rapport bu amical la rek booy ñang ñoo bokk xeet bokk deret muy deretu ngéwél mais safar gi laa jël seere faralu ma ko ama sama xarit la ama balde sama xarit la bu dul sànq rek la ñuy waxtaan la ñuy waxtaan message lu ma dugal statut mu commenté ko lu ma dugal mu lu mu dugal ma commenté ko dama seen suñu mag la yeneen mbër yi fa nekk ñoom ay rapport yu nice noonu ma ko amee ak ñoom noonu laa ko amee ak mbër yëpp ñi may liggéeyandool bu dee yàgg nañu ànd ñuy liggéey wala les autres moomoo mii mën naa koo jël seere man fu ma dem da ngay jàpp ni yow laa faral parce que loolu la liggéey bi laaj jafe-jafe yi du ci ñàkk ñu koy am mais jafe-jafe bu ñëw rek ak ni nga koy contrôler ak ni nga koy gérer bu jafe-jafe yi di gën a bari dina la may expérience dina la xamal ni yow sax waratoo coow même bu dee ñëw nga sax ñu ne la yow doo fi jël mbër doo fi wax ak mbër mi waratoo coow bala gay day bëri ak tat ak Eumeu Sène bi muy bëri ak Eumeu Sène seen deuxième combat bala Gaye di laajte dut sekk jóge fi muy tuusee ñëw taxaw ak alaaj Bécaye benn barrière moo leen séparé taxaw nañ lu mat deux minutes bala Gaye di laaj sam papa naan ko ana kooku mu ne ko kan mu ne ko kiy way Balla mi ngi ci làmb ji fàtte na turu ki muy wax ki muy laajte kiy way kooku noonu tamit way fekk na boobu dafa bëggoon mu wayal ko fàllaay comprendre nga gintee la buggoon a fecc bëgg ñu wayal ko ko mu soog koo fecc léegi bi muy laajte di laajte am ñu gis Balla Gaye taxaw ak Père Bécaye ñu daw ci cumukaay Eumeu Sène am ñoo xam ci tele bi lañ ko gis woote ci cumukaay bi hmm? am ñoo xam ci tribune bi lañ nekk woote ci cumukaay bi ne leen Bécaye ngi nit taxaw ak Balla Gaye am ñu ñuy wax bu Bécaye ñëw ci cumukaay bi bu mu dugg ñu wax ko Eumeu Sène Eumeu Sène reetaan ne leen waaw Bécaye ñëw Eumeu Sène ne leen puus leen yéen ñëpp ñu puus mooy ko duggal mu dugg mu wax ba pare ñu waxtaan ba pare après làmb ji Eumeu seen di ko di ci waxtaan ak père père na ko man de boobu Balla Gaye Double Less la may laaj ma koy wan fi Double Less nekk ëmb ne ko man xam naa la pour te dire làmb nit ñi mbëri yi ci nekk ñoom amuñu problème mais les gens qui sont autour les gens qui sont derrière ils divisent pour mieux régner dañuy bëgg wax ci Modou Mbaye lu ñaaw ngir mbër mi gëm ko ngir ñu mën a am place bu baax Ama Baldé bëri na ak guy gi comme d'habitude bu làmb bu mag amee du ma añ ndax damay bëgg indil Sénégalais yi information ndax xam rek dañ leen a bëgg te dañ leen a tàmmal bantamba wallahi nazim ñu ndekki duñu añ bu làmb yu mag amee dañuy xëy jug dem ba guddi la ñuy lekkaat ama di bëreet guy gi <laughs> yor saaku mbiskit ama dal na ma ci ama dal na ma ci Gris bi mu yoree mbiskit yi ñëw sarax ma mbiskit ma gis ko mu yoreale fruit ma ne ko dolli ma fruit añagu ma ama jox ma ay fruit ci mu kaay guy gi ñu ngi may gis am ku ne guy gi ama am lu mu jox Modou Mbaye guy gi tamit a été intelligent sama frère la bi may ñëw di interroger gars yi dañ ma bumax guy gi dem bumax ki ma bumax ne ko kii même bu doon nañ ko jox dara pour mu xëpp ma ko so du ma ko xëpp ndax ki ñoo bokk papa te xam na loolu ce qui veut dire gars yi ci ginnaaw nañ bàyyi loolu làmb nag jafe-jafe yi du ñaax mais saa yu ñëwee rek nga gérer. comme ni ko Wally Seck di waxee nit ñi moom ni mu gën a ñaawee rek noonu lañ koy nettalee ci expérience yooyu nga dund ban nga ciy lancé Wally ñu gars yi gars yi gars yi bàyyi loolu te ñu te ñu rafetal ko des fois yenn gestes yi wala yenn wax yi yenn fee yi moo tax respecté wuñu làmb sport football la gën a ëpp violence làmb keroog Angleterre Italie bi mu jeexee hooligans yi dañoo doon rey italien dañ leen doon rey man je suis plus le football que la lutte li may suivre football ëpp fuuf parce que moom laa bëgg mooy sama sport préféré mais li am ci violence ci football amul ci àdduna. lamb amu ko basket amu ko leneen amu ko football moo ëpp violence ak yeneen sport yi sax mais lamb la ñuy teg bët lamb la ñu gis parce que lamb moo am ay nit moo am ay nit yoo xamante ni ñooy wane ni ils sont violents te jaru ko nañ ko rafetalaat nañuy génne ay propos yu rafet ñu respecté ñu secteur yëpp a ngi liggéey ba mu des secteur u lamb man secteur bi ma nekk maa ngi liggéey ah parce que je animateur et suma télévision ñu ngi may soxla may dem di animé ji yeneen émission yu dul lamb ce qui veut dire man bu lamb aw ma problème maa ngi fayeku maa ngi nice ñi may séqal maa ngi séqal ñoom mais ci ñoom mbër yi lay gën a méttee ci la famille de la lut maanaam sës ñi nga xamante ñoo yaakaar làmb ci ñoom lay méttee nañu rafetalaat seen ay cadre lu tax ñu respecté ñu bu ñu respecté dina am neneen noo xamante ne dina tax làmb dina dina dina am leneen luy tax ñu làmb nekk ci beneen niveau mais bu ñu fi bëggee nekk wax lu ñaaw def lu ñaaw su Modou mbay waxee lu ñaaw waxee defee benn erreur au moom moo ñëw këram rectifier ko mais day woowaa Leewtoo ñu ñëw mën leen kaay la ñoom Modou Mbaye li nga def waroo ko def du noonu nii mm-hmm. rectifier entre nous soyons humains. et unis aussi. soyons mbooloo mooy doole bu nu booloo wul bëggante wuñu déggoo defuñu yëfi nit rek doon sori. dañuy lu baax internet xam naa ne waxtaan bi suñu ko doon xuus nii fii la ñuy mais temps bi moo ñu xaw a xoj. mais naa la tuuti ah. dama mayaat tuuti mayaat naa la tuuti xuusal. <laughs> amul problème day ñëw ci yu mag yi am instant bi ñu ajoon leen. mën naa ne sax ñuy veille bi ñuy une semaine ñuy lu lu jege loo ci yëg yow bi nga yëgee loolu. waaw comme dañuy ñëw tout près ñu aj combat comme ñëpp rek comme yow ni nga ko yëgee mu metti la metti ñëpp ah personne n'a voulu ñu aj làmb ji mais bon sant yàlla sant yàlla parce que mënoon na gën a doy waar mais aj nañu làmb parce que prétexte bi ñu jox mooy nee nañ coronavirus moo am troisième vague mais bon troisième vague bi terewul président Macky Sall di liggéey. troisième vague bi terewul président mak Sall woote Fouta tournée économique bi euh, économique bi troisième vague bi terewul ministres yeeg politiciens yi ku ci nekk yaa ngi fi nga nekk troisième vague bi terewul ñi ngi jël seen ay électeurs di leen transférer ñuy def groupe di dem troisième vague bi terewul préfecture yeeg maire yi ñi ngi fees dell ñi ngi liggéey troisième vague bi terewul ñi ngi préparer seen ay campagne électorale ce qui veut dire troisième vague bi lamb lay impacté comme li ma la wax parce que lamb lañ joxul cër bi ñu déggee nouvelle bi nouvelle bu ñu naxari la sant yàlla muñ toog xaar ñu jëlaat yeneen décision ngir làmb mën a tamit yeggaat ci beneen niveau. ñu ne ubbi waa làmb octobre mag buy ñëw. Balla Gaye Bombardier noo gisee combat boobu. loolu waa CNG balaa ñuy wax waxu nañ làmb ji waa CNG nañu nañu nañu nañu jàppale waat làmb te bu ñu forcer nit ñi pour ñu. def yenn action yi. nañu waxtaan u fait gis nga en Europe keroog Cristiano Ronaldo. dama ko gis mu génn muy wàcc jour dernier match Manchester bi ci vestiaire bi muy wàcc mais daa génn téléphone am wane passe sanitaire am Cristiano Ronaldo si dafa génn téléphone am garde bi taxaw ci bunt bi ci bi mu wàccee ci bus bi mu wane passe sanitaire bi garde bi pousse mu dugg ce qui veut dire bu wanewul woon passe sanitaire du dugg mais pourquoi Chris wane passe sanitaire pourquoi parce qu'on a fait une très bonne communication ci vaccination en Europe fii les politiciens les personnes mal intentionnées ñi nga xamante ne bugguñu Sénégal te ay sénégalais lu leer laa wax ñi nga xam bugguñu Sénégal te ay sénégalais ñooy def communication bu bon ci vaccin ñooy def communication bu baaxul en Europe ñu ngi commencé dugal nañ quarante mille personnes keroog. bi Barcelone di football je sais pas xaw ma kan bi muy football parce que quarante mille personnes yooyu yëpp dañu wane seen passe sanitaire nañ def une bonne communication bu ñu toog bu ñu woo nit ñi dans la taax kaa leen wu ku vacciné wul doo bëree moomu ñu nit ñi yàllaa fi teg ñëpp ñoom ñooñu di wax yàllaa leen teg fi ñu nekk te ñoom yaakaaruñu woon ni foofu ñu nekk fa la ñuy nekk faisons une bonne communication allons voir les tenoor woo leen ñu ñëw ñu teg affaire bi bu coow amee ci làmb le ministre des sports day woote mu leen nañ leen waxtaan Balla tu as droit communiquer ci affaire bi Giri tu as droit Modou tu as droit Eumeu tu as droit Bombardier Lac 2 Ama Boy Niang vous avez droit communiquer ci affaire bi de telle façon bii la ñu soxla ngeen communiquer ci lii la ñu bëgg ñu def ci woo Père Bécaye Mbaye woo Lamine Samba Malick Thiandoum Khadim Samb Sala Bigué bari nañu anyway ñoom ñëpp ñu woole ñu ñëw toog ñun leen dañoo bëgg ngeen jàppale mbëri ci communication bi su ko defee bu boobaa ñoom Modou Mbaye Ndeye Mbacke Lamine dinañ mën a jaar ci ñooñu divulguer affaire bi vulgariser ko affaire bi tas comprendre nga dafa am nu ñuy liggéeyee mais bu ñu toog seen bi ay bureau yu sedd taal seen ay clim booy yu nekk ci mbedd di rey seen bop ñu naan ku vacciné wul booy dañu koy jaayante dañuy bañ. di wañaar seen loxo di wañaar seen loxo booy booy ñooy dañuy bañ ne vacciné wuñu léegi ñoom ñooy am jafe-jafe ndax biñ fi nekkee la làmb di tëj nañu xoolaat la façon donc dont on communique avec les lutteurs respectons les lutteurs mais aussi nag il faut que les lutteurs se respectent eux-mêmes pourquoi les lutteurs doivent se respecter yu mel nii moo ko waral as ñaari association des lutteurs moo am association nationale des lutteurs du Sénégal am association des jeunes lutteurs ce qui est anormal am na loo xamante ni nii buy am nit ñi di ko gis di di ko gis du tax ñu jox ñu cër les jeunes et les grands lutteurs dañu war a booloo doon benn bokk ndey ak baay su ko defee làmb avancé. xale yi topp ci ginnaaw mag ñi xale yi topp ci ginnaaw mag ñi ndax mag ñi ñoo góor góorgóorlu nañ ba yegg fi ñu nekk. xale yu góorgóorlu topp ci ginnaaw mag ñi jéem a fexee mag mel ni mag ñi te wàññi tuuti wax ji. parce que ñoom ñëpp ku ci nekk ñun am na ñu cër ci yow. bien te ku ci nekk ci sa carrière ñun am nañ ci wàll. joué nañ ci rôle bu am solo. ond ond la fu le président d'honneur wala ci président yi la bokk moom carrière moom xam na man xam na. combat mag bi ñëw ne octobre Balla Gaye Bombardier noonu c'est combat que maire gagne. Balla amateur naka nga gisee combat woon nañu Bombardier daan ko bi mu koy daan Balla nee na wérul woon eh dëgg la nag wérul woon. parce que aussi Balla boobu noonu ñu gis bon dañuy wax rek te yàlla tax Balla boobu ñu gis du woon Balla bi doon bi bëreeg du woon Balla bi bëreeg Yékini du woon bi bëreeg Kay te Bombardier nangul na ko loolu certes mu nekk komba boo xam c'est un fin c'est un fin technicien un lutteur le le le meilleur de le meilleur wala l'un des de sa génération mooy daje ak Bombardier Bombardier aussi est l'un des meilleurs de sa génération parce qu'il est roi des arènes deux fois ce qui n'est pas évident ci làmb mu am loolu bon mu nekk combat boo xamante ne nii du doon combat buy yombu parce que Balla day attaqué te physiquement bu ñu seetloo changé na Bombardier musul arrière ci kanamu kenn dafay daf lay taxaw xaar la wala mu ñëw sa kaw mu ngi doon combat boo xamante ne dañuy daje ndax bomb du arrière Balla du arrière kon ñoom ñaar dañuy daje bu nu dajee nag bu nu bëree dina neex ndax Bombardier technicien yi ñuy wax naan ñoo dàq bëre Bombardier kenn musu ci daan jee ci làmb ci bëre déedéet kenn daanu ci bombardier ci bëre yax yaxanaa yaxee Diop Yékini moom moo ci daan bombardier ci làmb mais tous les autres techniciens yi ngay dégg daanuñu bombardier ci làmb comprendre nga mooy loolu bala gay technicien xeex bagarreur yi ngay dégg ñu naan ils sont de fin bagarreur ñu Balla ci xeex bagarreur bu ci bëreeg Balla Balla duma duma comprendre nga li mu ne combat boo xamante ne nii ñi ngi ñaan ñoom ñaar que le comme baa boobu laa ko joxoon dañuy dem suñu seetee beneen reporter jox ko beneen combat mu daal di ciy tojal balaa ñuy tëj dama sa plat man nag sama plat préféré mooy lu cundu sa togg. Ah, lépp man je lépp. lu cin rusul togg rusuma koo lekk. daaw bi ñuy jaay xar tabaski xam naa ñëwoo fa sax defal ma reportage mais boo ñëwoon di nga comprendre man maa fa nekkoon ak sama yeneen ñetti copain ku ci nekk sa kër dañuy yónnee bool mu ñëw ci dara bi dañuy sotti bool yi jaxase ko. Hmm? waaw añee ko. fer bàyyi fa la rek lu cin rusul togg ñun rusul ñu ko lekk ay góor lañu. Eh, góor amul mbañ. góor warul am mbañ. damay xiif lool léeg-léeg ñëw fekk mbaxal. dóor ci ba gàtt ba sama biir yëg ba ma yëg sama biir suur na sama xel nice noo ma jug nice naan ndox naan pot ndox jàpp sama ñàmbur. yaa ngi dégg biir du nettali. boo reeree ginaar ma reeree mbaxal. non mi ngi noonu. ban jikko moo la gën a neex ci jigéen jikko. sama jikko yaay ak sama jikko soxna. muy maandu ak dal. sama soxna dafa jël loolu ci sama yaay maandu ak dal. première dame wala las. première dame. mooy première dame. Hmm. mooy sama aawo. Hmm. Eh, góor laa Baay Faal laa. moom moo chaque jour moo xoo ko man man man man ñun ay Baay Faal lañ te duñu maanaam suñu soxna yi suñu soxna lañu suñu ginnaaw la ñuy topp mm. ñoom ñun lu ñu bëgg ñoom dañ ñu koy bëgg leen mais ñoom lu ñu bëgg ñun ñu bëggale leen ko mm. amul problème bu yàlla dogalee bu yàlla tuddee ni dañoo war a am ay soxna bëgg nañu xalaat nañu ëllëg fii ak quelque temps mm. yokk xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu rek lañ ci jublu ci ànd booy ànd ak nit ban jikko moo lay gën a ban qualité ngay xool pour ànd ko ak nit mu dëggu nit ku dëggu ku dul tricher moo tax awma xaritu milliard aw xarit bu ma xam au fil des années astafurlah am na mais maanaam awma ma aw ma koo xamante ne nii bokk nu ma ko mën a waxee comme dañu rapproché rapprochement bu garaaw. boo xamante ni nii non non man nit ñi ma xamante ne ñëpp xamante nañ bu yàgg. samay àndandoo démb lañu. samay àndandoo ñi ma juddoondoo laay àndal ba tey sama koñ Grand Dakar du ma fa bouger su ma demee Pikine la même chose samay xaritu Pikine du ma toog deux semaines teg wala une semaine te gisante wuñu bari naa tànk Pikine trop samay xarit laa fay fekk bëgg naa nit ku dëggu ndax boo dëggoo di nga jomm lu bari nit ku dëggu du fen nit ku dëggu du fenn nit ku dëggu dina jo dina moytoo def yenn yu bari yoo xamante ne nii baaxul en parlant du CNG le vice président du CNG mi ngi noonu di yëg ci see Bantamba TV dañ ko fi invité. macha allah di ko bu baax a baax. loolu daal bëgg naa ko nit ku dëggu. nit koo xamante ne nii doo tricher daal waaw loolu bëgg naa ko ci xarit. macha allah Mourou Mbaye la woon ah borom Bantamba. borom 2STV waaw dama koy bëggee bu baax xam naa ne waxtaan bi du jeex mais dañu am occasion yeneen yu bare bare bare ah mu ngi fi maa ngi fi ay doom ndane sama bon waxal Charles naa ñëw majaal si majaal bi incha allah suba tàmbali bu fekkente ne émission bi dina génn ci diggante bi boo ma mënee jàllaleel loolu dina ko gis man majaal tey laa koy commencé man ak Mour Mané indi ko banta majaalu safar mu mel ni waaw majaal gi laay tàggatoo di ko wax sénégalais yi di leen wax ni majaal comme année bu jot rek daaw yi dañoo dem Madial ñu jàppale ñu bàyyi ñu biñ ñëwee yow kër sëriñ bi daanaka ñu yóbbu fa ay trois 4 millions. te lépp sénégalais yi ñoo ñu ko baaxee seen mbaax la dañ lay gis ci tali bi sax daw ñëw jox la 100000 kii jox la billaahi te xamoo leen. ñu leen di ci jaajëfal bu baax a baax suba la ñuy commencé waat Madial bi te Madialu ren bëgg nañ dem ci kër yi nga xamante ne fa la ñu suñu ay nawle ne. suñ ko waxee mooy kër de maison de presse yi. tamit indil leen li nga xam ne ñun moom mooy suñu li ñuy dund ñu jàppale ñu si Madial bi incha allah suba lay commencé Momadou moo koy def ak Ketchup incha allah ñu ànd seeti gars yi di ñaan yàlla suñu borom ñu dem Touba ci jàmm ñëwaat ci jàmm chauffeur yi nañ daw nànk bu benn chauffeur jël client yu maanaam voyage yu bari jaru ko péage bi léegi gaaw na dem ñëwaat maanaam te bu gaawee bu ñu dawee nànk rek ñun ñëpp dinañu dem ci jàmm ñëw ci jàmm sëñ Fall dafa ni woon bu ñuy nit kuy dawal danga naan nikk mu dëgër naan nikk mu dëgër te ne jàkk bu ne tàccit nga ni tekk mu ne yàng nga ni yollu sëñ Fallou moo waxoon loolu kon gars yi nañ xool jikko sëñ Fallou yooyu ñu dox ci di ñaan yàlla def jàmm ci réew di bëggee sama gars yi di la bëggee yàlla nga mel ni kan yàlla nga mel ni yàlla nga raw Aïssatou Diop Fall amiin nga raw Ndeye Kumba Fall yàlla nga raw ñi mën ci télé jigéen ñi mën ci télé ñëpp yàlla nga raw ñoom Amina Potek yooyu waaw yàlla nga ko raw <laughs> yàlla nga ko raw yàlla nga ko raw parce que yaa ngi ñëw Bijou elle a confirmé yow yaa ngi ci yoon bi yàlla nga ko raw te moom yéene na la nga raw ko incha allah kontaan nañ ci yow. dama koy bëggee bu baax a baax. nday ah. Mbacke. sama waaw kay Mbacke Mbacke bu ma déglul nii ah Mbacke Mbacke utul ma ay taal bi ñu commencé. turandoo moo sant Mbacke. foo jaar yàq jaag baax na dama koy bëggee bu baax moom Momadou Mbaye vraiment nit ku baax ku oyof. soo ko seenee da ngay naan déedéet waaye bu la jegee ba nga ko nga xam ne nit nit kese la di ko ñaanal jàmm ju baree bari fi mu teg bëtam yàlla yeggee ko fa li mu bëgg ci ay waajuram yàlla ko ko waaye damay sant di gërëm sama équipe bi ah, damay bég ci yow naa la bu baax a baax waaye moom maa ne kenn du yow damay bég ci yow bu baax a baax di leen sant di leen gërëm international waaw sama xarit bi nag cameraman bi nag cameraman bi nuyu ko moom day dikkale ma man damay dikkale lu ma tudd turam dañoo dañoo xaw a bàyyante noonu bàyyante privé ma yaa mooy ngi noonu sama sama sama soppe waa national waa international damay béggee ñëpp ah bàyyiwuma kenn leen jaajëfe baax mais happy birthday ak nga xam ne mooy Fatima Naar ah turandoor Fatma Dia di ko béggee baax di ko ñaanal jàmm ju bari ak gudd fan mu nduroog turandooram mais dal di leen béggee baax jóg leen di la jeg ëllëg ak beneen xew-xewu làmb ak beneen nitu làmb jaajëf